مولانا بكل عسر مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا دره فقر ولا يسلط مولانا دره فقر ولا يسلط مولانا عليهم العدو يا من يقصد مولانا لا إله الا الله محمد مولانا ومنك ثم بك كل ما مولانا ومنك ثم بك كل ما مولانا ظلمت وأنت تكرهني كما مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا رجوت أنني رجعت منك مولانا رجوت أنني مولانا محمد مولانا ومن دكارينا ترتونا مولانا ومن دكارينا قولك الأمير مولانا مولانا أمين لا إله أمين مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا جيب دعوتي مولانا الله أما نجري مولانا ربي لداك يا مولانا نسألي ربي لداك يا مولانا مولا سر الأمين إني يا مولانا لا إله إلا الله محمد

قد شفيت من أسقامي مولانا بتلك قد مولانا Maulana, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah.

مولاي لا إله إلا الله محمد مولانا مرة أخرى ترون العجب مولانا وما Kano, You Wekano, Maulana. Haraya Tome, Kano, Wakalibi, Wekano, Maulana. Limlawa, Azali, Kano, Sakano, Maulana. La ilaha illallah, Muhammadun Maulana. Habibuna,

kanu fil Quran maulana. maulane afdal ma yo kanu fil Quran kanu maulana kumura wa kukuna ma maulana kulu maulana la ilaha illallah Muhammadun maulana awwal wa awwal maulana. شنا مولانا ثالثة البلدان وهياك شنا مولانا سنا سلام الله لا إله إلا الله محمد مولانا أولهم مولانا أولهم القوس وأهل زرمى مولانا أولهم أوس وأهل زرمى مولانا كذاب الخير فيهم أما مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا الداني الجيوش والنصارى مولانا والنصارى خوفا عليا هم يا مولانا لا لا إله إلا الله محمد مولانا يا ربي بالماء لتمي أسرى مولانا يا ربي بالماء لتمي أسرى مولانا الذي ضربه ونصره مولانا لا إله محمد مولانا قف سليا على المختار مولانا قف سليا على المختار مولانا وآله وصحبه الأبرار مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا ما شاء الله ما شاء الله mooy ñu ñuy seetaan uh, ci Facebook bi ak mbokk taaliba ñu ñuy seetaan nañ xam ne uh, ñi ñëw fii ñu ngi jógee ci dëkk bu sori boo xam ne mu ngi tudd coota nga xam ne moo nekk coota muy Seyda Oumul Khayri Niass. Niass Niass Cheikh Ibrahim Niass mu nekk doomu Cheikh Ibrahim Niass boo xam ne. bàyyam daf ko gërëm mu mokkal alquran ci wetam. ba muy dem cooto ca Niger. dëkk boobu mën nañu wax ne amul ndox amul courant. amul sax kër. ci ay néegu ban lañ dëkkoon. ki ko yóbbu foofu. mooy xaaj Ahmadu mi nga xam ne alxalifa di doomu Mawlana Cheikh Ibrahim moom moo jur Seydi Ali mii toog nii moom la bàyyi jël na ko jëlal sa rakk nga xam nag moom nga yóbbu ko ci sëriñ bu mag boobu nga xam ne xutbu bu mag boobu cheikh bu mag boobu muqaddamu Cheikh Ibrahim bu mag boobu nga xam ne wàllu yàlla la ndax لا تمي نيو تي باي فكنا يالا دفنا تي موم ولايته موي شيخ ابو بكر تشوتا نيو يالا مايون نكو تي بركه ليغا خامني تي شيخ احمد التجاني اك تي يونت بي صلى الله عليه وسلم لوم لين نيانون واخ لين كو دنج كو كاي نانغول مو خامانتك باي لولو غنا دغر تي لولو بوكو حاج احمد يوبي تي فوفو موم سيدا ام الخير يس بامي نيبسي Haji Ahmed daf koo nëbbatu daw ñëw ñëw ci bàyyi na ko yow bàyyi mu ne ko ah ko ah fi ma dem de gis ko sa doom ja fam dem noonu daal bëggoon naa daal mu ñëw fii bàyyi na ko bàyyi ko foofu lépp foofu la ko yes te lépp foofu la koy fekk tey dem na ba nga xam ne buur yi ñoo koy soxla président yi ñoo koy soxla di ko fekk si foofu ñu ngi koy yónnee jag privé yi ca fa nekk te musta bouger fofu ñu ñëw diko ko fekk suba mo xam Kadhafi la mo xam ku ci doon yór nañ nga fofu mo xam ba ci buru Angleterre mo xam ku ci doon ñëw nga fofu ci cooto pour rek bëgg gis umul mom kon yalla moy maye te waxu bàyyi du delu gannaaw te moko jur mom Mawlana Cheikh samp gum ko samp nak tay dem na ba nga xamni congrès bi nga xamni daf koy def man ci mujjé ki nga xam ni duñ ko fàtte mukk ci suñu biir xol ki liggéeyal Mawlana Cheikh Ibrahim ki nga xam ne kenn la ci moom muy Cheikh Mamour Ibrahima ci 2011 ñëw nañ foofu congrès boo xam ne deux millions et quelques personnes dañuy ñëw fekk congrès boobu ñu ñëw cooto jour boobu maa ngi fàttaliku ñu yéegal sëriñ Mamoun ci kaw fas bi jox ko jaase ji tatagal ko te loolu Seyda Oumou Khayri moo ko liggéey na ci dëkkam bi loo xam ne képp ko xam ne ci dëkk boobu jege nga fa yëkkati na defal la projet dina leen yëkkati di leen ci xaalis ak ci lim mën ci doon loolu Seyda Umu Xayri moo ko tabax na ay jumaa jumaay juma waaye defar na ay école école te defar na dëkk boobu nga xam ne tey soo xoolee dëkk ba màkk sax soo demee foofu da xam ne cooto moo dàq màkk fu nekk waaye nag Umu Xayri tamit moo jur kii nga xam ne mooy Seyda Fatiha ñëpp suñu jarbaat la ndax suñu mag bu jigéen moo ko jur waaye dama naan jàmbaar rek jur jàmbaar wàlli yu jur wàlli waaye dëgg-dëgg doomam ji tay moo liggéey ci lislaam ci Nigeria mm-hmm. mun naa wax ne ci Nigeria lam ca liggéey ak ci biir Niger ak ci biir Abidjan ci biir Afrique bi ak Burkina Faso foo dem li nga xam ne moom la maamam hoote woon mi Mawlaana Cheikh Ibrahim nga xam ne mooy fayda bi fayda boobu tey mun naa wax ne suñ ko liggéeyee tey ba muy yegg fii bokk na moom jigéen ji nga xam ne jigéenu góor la ci lim liggéey tey tey mu ngi nii indi fi ay biis indi fi lu mat ñaar téeméeri nit ñu ñëw ziare si Mawlana Cheikh Ibrahim ñii war a dem le vingt quatre wala le quinze wala le seize am beneen délégation boo xam ne dañuy ñëwaat parce que ñii dañuy dem ñooñu ñëwaat moom mu toog di leen di xaar kon jàmbaaru jàmbaar yi moom jàmbaar la ci jàmbaar te nag nu mu ko juree moom noonu la juree tamit ki nga xam ne mooy Zahra ak ñoom ñëpp nga xam ne tey conférencier boo xam ne la international ci àddina bi ñëpp xam ko kon dañuy wax jërëjëfee Baye Niass jërëjëfee Baye Niass Baye Niass def na loo xam ni àddina tey jëlal kayit nga bind ci cheikhul islam nga yegg ci avion nga sànni ko mu dem ku for kayit gi fu mu mënti dem soo koy delloo mel na rek nga koy delloo ndax leen cheikhul islam mooy cheikh Ibrahim du moroom te ku ko def moroom deseeg borom. la moo ko jël teg ko. kooku nag tey àddina moo neex ku nekk nga bàkku. Mm. waaye kenn mënta bàkku kenn mënta yëngatu ba tolloog Mawlana Cheikh Ibrahim. du ci xam-xam. Mm. du ci maqaama. Mm. ndax a moo ko tànnal boppam. a la tànnee yonent a na ko yow yaay xaatimu nabiyiina. Cheikh Ibrahim yow yaa mujj ci wàllu yàlla. kon Cheikh Ibrahim. yes gannaawam keneen mënut a xam. mooy bàyyi xaalam gi moo tax ñun ñëpp ñu koy ooyee bàyyi. lu tax ñu koy ooyee bàyyi. mooy bàyyi ñëpp. Mm-hmm. parce que ku yeewu di nga wax bàyyi. bàyyi damay wax ne. nit ñaa koy. kacoo ñii naan sama taalibe la ñii naan sama taalibe diw la lii naan nangam nangam la su leen su bàyyi nekkutoon dara kenn du ko xëccoo moo tax dañ ciy sant yàlla lim nekk dara wër àddina bi moo tax ku nekk di xëccoo naan sama taalibe la wasa jërëjëf nañ kon nag boo xam ne bàyyi sant yàlla waaye ñu ngi delluwaat ñu ngi delluwaat. la baay doon def rek ñii toog fii li may wax ci olof dégguñ ko waaye ñu ngi koy dégg ci seen xol. dëgg la ndax bàyyi da doon toog fii bàyyi da doon toog di firi alquran. am ñoo xam ne ay naar lañ am ñoo xam ne xawsa lañu jógee fu ne. waaye suñ ñëwee toog ci tànt bi nañuy dégg baatu baay bi rek waaye ñu ngi déggee xol kon tey ñii kenn déggu ci xolof waaye ñu ngi déggee xol si parce que baay rek doy na leen suñu soogoon ñu naan baay baay loolu doy na bi ñu ngi koy nangu mu toog mu nekk ci ziyaarab Cheikh Ibrahim suba di ziyaaram ñaanal suñu mag jërëjëf daa umul xayr jërëjëf yàlla dundal ko may ko gudd fan yàlla may ko wér suñu kanam ba ca kanam moom difa ji a yàlla na ko yàlla doon yàlla musal ko ci bépp pexe loolu lañ xamoon pour wax ko wa Facebook yi di seen waaye dégg nga foofu way baay bi baay nee na jugee na kanu waaye xol ba mu ngi kanu jiital na ci jiital na ci Hausa ak Jarma tudd na ñëpp buusi tudd yoro baa tudd lépp te xeet yooyu yëpp kenn dul ci doon laal sa borom waaye bàyyi la alquran waxoon wa'tasimu bi hablillahi jamii'an wa laa tafarraqu loolu moom moo ak ñoom ñëpp nekk ñoom bàyyi dëgg Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. ورمي شيخ الإسلام ورمي Now, yes. Yes. Yes. Yes. Yes. sai muka ce shi ne auta ma ni wuri na ba auta ne shi ne ba farko shi yake kula da harkar mu shi yake son mu duka kwangare ma mai yayi yana zuwa nan ma kun gani sau biyu ya zo kenan wurin mu babban shi ne yana kewaye shi dole ne ya yi wannan wadda lokacin da mamanta ta zo gidan nan shehu ibrahim ya dauke shi ya ba maman mamma sun da na tana karami ita ta rike ta a dakin sannan saboda haka dakin eh, guda ne suke da mamma ko ba wannan ba to na kuma yana faɗi kamar eh, lokacin da mamma ta je nijar mutane da yawa shehu ya sa suka raka a cikin mutanen akwai kalifan sana biyu shine dam baban wannan shine ya yi suna da nake ba to shi dan khalifa na biyu to raka sai da nijar yake da ba ruwa ba komi a kyauta sai abin ya damu iyayensa kamar baban wannan sai ya dawo yake cewa ni dai shawarar da zan bayar wurin nan da muka kai wannan bai kamata ya zamna can yanzu ba saboda wurin daji ne ba komi a kyau sai shehu ya ce ka bar ta kyan komi zai zo ya same ta saboda haka ban damu ba na san komi sai ya zo ya same yake kuma komi ya zo ya same ta tun da ta bi umarnin ba kama abin da kabir maulana ya faɗi to shine ya faɗi ina so magana su duka kadan kadan shine ya faɗi yana ta yi mama addu'a ake Allah ya ba sauran rai amin amin ayyuka da ya amin yake wani shekara da muka yi taron mama na mata sun ta yi da shehu mamu dan shehu minista na ya suke yayan shehu dama shi zuwa ya tayi da yayan shehu da yawa da jikoki kamar mutum hamsin ko arba'in to ga Allah ya yi masa rasuwa to yake lokacin sun tayi tare wurin taron mu na kwangare na Nijar yake cikin taro sai da ya kawo doki an sai da doki a tsakiyar mutane an sa dukkan abubuwa don doki an dauki Sheikh Mamun aje a kan doki an ba shi abin nan da ke ba sarakuna sai da ta zo ta sa ta wuya ta sa mata abin nan ta kuma ta kori ta sa ta yake ba zai taba manta da ranar nan ba saboda ya yi girma wurin siyasa cikin tarihi bayan wannan shi ya tahi da sojoji wanda shi yake kula da duka shirye-shiryen da taron na kaula na matasa duka shi ne shugabansu to yana da matasa na sojoji shi ya ta yi so biyu bayan wannan kongare da muka yi karshe manya mai ya zo da sojojin nan sun yi rawa sun yi zikiri shi ya sa kwangaren nan ya yi da saboda haka yake ya san maganan da yake yin nan ku duka ba kan mhm. amma akwai yorbawa akwai hausawa akwai gabarmawa akwai duka ko'ina yake amma in ce yana faɗi ba sa ji amma wasu suna suma wasu suna jin daɗi ba za su san ma inda suke su dai eh, abin nan nasu ba dai suna jin muryan shehu ba to yake shine yau ga kuna jin daɗi kuna ji har cikin zuciyanku tunda kun san dai maganar shehu ne kuna kallon shehu ba ruwan ku da kuna ji ko ba ku yes shi ne a gurguje abin da Allah ya kara miki lafiya eh, ya ji dadi ziyarar nan da kuka kawo masa eh, kwanakin baya akwai cikin kasan nan wanda yake shi ibrahim almagirin gidansu ne maganan nan ya yi tashin hankali kamar dai a ta duniya to shi da kansa ne da kudu abin haka wani shehu shi ne zai yi abin mun kalle shi gida bayanin da yake yanzu ma ya sa kawo kadan yake wai waɗanda suke ke shehu almagirin gidansu ne yake ya kai dai ne in bai zama mutumin kirki ba mutum ba zai ni gidansu ya tashi amma gidan gidan yake wannan ma wani makami ne ana kokowa kansa ya so shehu ya kai shi kowa zai ke nashi ne hali waɗannan da ba ma almajiransa to amma shehu ba almajirin kowa ba shi ne ya kai ke ta Allah ya fara miki lafiya da nisan kwana Allah ya kare ki saboda arzikin nan Allah Allah ya fara miki lafiya Amin ya Allah ya kara miki lafiya na faɗa na faɗa kuma ta ja wuce ne magana aka faɗa na ce gaskiya ne dan jan ne bare faɗa ma wani abu ne sama babu babu gura babu gura

Ana Bak neyse şiddet olmaz. Şurada. Mubarak. Ka yi selfie ta. Tey mu ngi wala mu ngi

kada ku dame shi da ture-ture shi Cota mun go? Cota, ban zo karfa. Musulun sayo ne. dangaa niru bàyyi tey. ah alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy